xam ne nii tey fii la xewe nag ci Sénégal la 5 kan lay ñoo fi daje Modou Lo ak ki nga xam ne mooy te ñu ngi fii Parcelles Assainies fas yéene dugg ci biir seet li nga xam ne nii moo fi nekk ñu taatanal ko askan wi ñu ngi ko xool di ko déglu ci télévision Futurs Médias mandak obs ci caméra bi ñu fas yéene dugg ci biir seet li nga xam ne ni amateurs yi ak amatrices yi ak mbokk yi ñu ngi ci biir ak seen xarit Cheikh Ndiaye TFM Futurs Médias ñu dem waaw waaw waaw. tey nga dégg daal tey nga dégg daal tey nga dégg daal tey tey ngay kontaan tey ngay tey ngay bég lu ngeen di bëree maanaam xolo bëri bëri bu daw yaram nga nar a gis tey tey barke alxuraanu karim dañ xamal lañ ne ñaari xale la moo tax ma kontaan waaw moo tax nga nar a ñaata minutes ngeen fas moo du tey xolo mu suñ si moom la dépendre combat bi am 3 minutes combat bi léegi lu ma la si moom la waaye bi day yàgg moom daan ko barke teg naa ci lu ne ci lu ne wóor yaa ngi la ngay def naa leen so ne nga ne ama nguri nee na su ko Modou Lo daane dina bëreeg Talfa par la force bu ko Modou daane waaw day bëreeg Talfa par la force wax ko mu ngi lay dégg en nga ne ama eh, laay waxal Modou Lo su daane yow di nga bëreeg Talfa par la force te di nga moom te nan lay daan nga bëreeg moom par la force ñang baalo bëreeg ñang baalo ñang baalo ñun parcelle le bu ngeen génnee ci combat bi day génn force accès dina yomb loolu day yomb lu neex la bu nu pigin la ñëw rek jàll bu nu pigin tëj ci xam nga tëj dañ koy tëj ci ba pare eh, soog koo daal parcelle leen dëkk du ñu ay ragal de ragal du jàmm man ñaan laaj dafa mën dafa a bëri combat bi xam nga ñaan laaj pare deux cent laaj teg deux cent mais mais dégg nga gars yi ñu ne 200000 ñii 100000 xam nga loolu lañ ci teg yaakaar naa ne. alxuraan teg naa ci lu ne barki Sèye Ibra Faja fii laa dëkk barki sëñ Bamba teg naa ci lu ne wallaahi wa taalaahi mu loolu da koy duma daan ko si. léegi moo du génn si kër gi ñoo ngi fii ci buntu ñu ngi buntu këram nii taxaw moom rek la ñuy xaar mu génn ñu accompagner ko ba fee mu noqal ñu ko dumal ñu ko daanal ñu ko ñu andil ñu ko fii te yàlla xam na ne mun loo bu taxawoon. amaa taxaw booy ñaar taxaw salaamaaleykum.

da koy séntu rek mais du ko gis. ah da koy ah. du ko gis. mais nee na dafay des de. du fa des incha allahu rabbi. dégg nga ko nee na dañuy séntu roi mais du ko gis mu amaane ne bu ñu bisee bu ñëwee Pikine du dellu Modou ne ko déedéet dama koy indiwaat parcelle ci kanam tuuti lañ koy xam. waaw eh kaay kaay kaay kaay kaay conki sil kaay conki sil yaa ngi en direct ak RFM 14 euh, euh, yaa ngi yaa ngi direct ak TFM télévision média Modou Lo Ama Balde. mu nekk combat boo xam ne nii combat royal la Modou loo Ama Baldé Ama ne na bu bi ñëwee du ñu bisuwaat parcelle Modou ne ko dama koy indiwaat ba dool ci tegal ko xale yi conke seen na waaw delloo jaar delloo jaar delloo jaar Ndiaye ñu ngi jaar bu baax a baax a baax nan ngeen préparé Modou ah mais Modou ku ne xam ne ne carrément Modou jàmbaar la Modou moom wax dëgg fa yàlla moom jàmbaar la moom jàmbaar pire la jàmbaar la moom te mun na bis quoi tamit mun na bis làmb nag làmb jànk la quoi làmb jànk la te Modou du négliger combat waaw combat bi daa um ko yóbbu quoi waaw dëggal nag mooy roi des arènes wante nag du ko may dara nag waaw dëgg ah, loolu da ko soxla dafa yàgg waaw dafa yàgg làmb ji làmb joo xam ne carrément du làmb ndaw quoi moo du xam ne fu ko làmb ji xam na ko mais est-ce que ngeen xam ngeen ama bi ngeen di day waaw mais ama xam nañ ko parce que soo xoolee ba xool ñun équipe Pikine moo jur équipe Rock Énergie écurie Palaay Balde. su ma xam nga ci dara man xam naa ci. waaw moom laa écurie Palaay Balde moo jur Rock Énergie waaw kon yow ñun suñu demee dem dem dem ba nekkoon fa ay mbër jëjëge saaga yor suñu poulain ba suñu poulain bi dem ba nekk roi de arènes suñu poulain bi tamit di dem di bëre ji écurie Palaay Balde kon ñun xamante nañu waaw day mel ni comme ñànkatak ak maafe la rek. jàmbaar ji Demba Dia yal na ko yàlla yërëm bi mu jógee bitim réew. ñoo parcelle amul écrit mu ne nañ créer rock énergie moo tax mu tudd rock énergie yaakaar naa doy nga ci seede ci li ma wax. waaw loolu moom dëgg la wax dëgg fa yàlla moom daf si ñoo jàppale si rock si écrit bi quoi franchement parler jàppale ñu dañu doon gëmloo ni carrément bu leen uti beneen góor góorgóorlu leen roi des arènes mu ne fee jënd ba yàlla def ni carrément roi des arènes Modou yàlla defal ko mu nekk roi des arènes te ñu koy ñaana yàlla yàlla ko yàlla may ay ndam mu bëri fi ñaari combat daan ba pare mu bàyyi làmb nag teg si encore dama kaa bëggal sama bopp bëgguma sax yi bëri yeneen bëri yi waaw moom sama doom la sama rakk la sama lépp la waaw daanaka moom làmbam ñëpp ñu ne taxaw na kii man mooru maa ko yar bu muy maa ko commencé doon yóbbu ay mbapat maa ko doon yóbbu muy entraîné ba mu agsi fii nii moo tax aw ma si benn aw ma si loo xam ne ne carrément mooy loolu Modou xam naa ne champion la da xam naa ne mën na bis waaw. jërëjëf jërëjëf si kan mais ñu ngi demee arène nationale léegi. jërëjëf léegi nag lu may ñaan supporter rek lamb la parce que Modou su liggéey këram lay yóbbu Ama Baldé su liggéey këram lay yóbbu supporters yi dañu àndal dal non à la violence parce que ay yooyu noonu moo amul ñaari mbëri su boppam laa la seen ay millions seen kër lañ koy yóbbu Modou këram la koy yóbbu Ama Baldé këram lay yóbbu ay millions comme supporter nañ nekk nit nañ nekk ay doomu aadama yoo xam ne carrément ñu football ñu bëri ko si fair play que le meilleur ñu ñaan yàlla nag Modou dan loolu ñaan suñu borom bi wante nañu am fair play fair play fair play si boppam ba si géew bi na sécurité bi vigilance ba pare mooy loolu du làmb loo xam ne carrément du làmb politique du làmb loo xam ne ne carrément du làmb Macky Sall du làmb Sonko du làmb kii làmb ñaari doomu aadama la diggante Modou Lo la ak Ama Baldé la ñoom ñaari ñooy bëri si biir géew bi nañu àndal discipline ak yar yàlla loolu la bëgg ñu bëri ko si bismillahi rahmaani rahim mu jeexee alhamdulilah yàlla kay ñu ndam loolu dong la ñaan yàlla